donc dangay ngay màggal si nitu yàlla nitu yàlla nag bu génn àdduna boo bokkee si ñu koy màggal da ngay sant donc dañuy sant yàlla ci mu ñu yàlla boole si ñi ko mën a ñëw fekkee si bi ci des damay ñëw ndax sama wëla rek sañ bas sëñ bas yàlla moo def ñu nekk ay wóolu ñu wóolërante nekk xarit loo xamee ni que yàlla moo ñu boole ñu xamante ca Maroc boobu ba léegi nag vraiment lu mu nekk lu ma nekk da ciy bokk lu mu nekk it dama siy nekk donc loolu moo tax vraiment bësam bësu papaam damay obligé ma ñëw man tamit won ko ne que nit ki bu la yëgee yëg rek nga koy faj mënoo faj leen ak yëg donc loolu moo tax mais kuy ñëw tamit bësu yonent bi la ñuy ñëw pour ñun parce que bësu nitu wàllu wala nitu yàlla bu nekk bësu yonent bi la ndax ñoom màggal yonent bi nekk ci li yonent bi santaane ci lañ nekkoon kon kooku boo nekkee ci li mu nekk sant yàlla rek ngay def loolu rek moom fi Sénégal li ñu leen di ñaanal mooy jàmm rek ak taw bu ak nawet bu barkeel nawet bu barkeel daal la ñuy ñaan ak jàmm la ca ñu teg ko si loxo yàlla ak gëm tey nag ñu gëm yàlla wóolu ko mais ñun nag dañ ko gëm wante wóolu wuñ ko dama bëgg ne nit ñi léegi nañu bàyyi gëm bi te indi wóolu bi ndax wóolu bi moo ñuy jëriñ loolu rek laa amoon li wax maa ngi jégalu nak